Salam, salam la j'espère que les cool. Alors merci et re-bienvenue sur notre chaîne YouTube Kenza 221. Bien sûr, la chaîne des news, des plus belles chroniques, mais aussi la chaîne qui vous fait vivre les meilleurs moments du game. Donc, jusqu'à présent, vous, vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos donc gars yi c'est un jeune rappeur très talentueux et qui se tout simplement Petit Doudou bon Petit Doudou n'est pas la première fois que wax ci vous à travers nos vidéos précédentes Petit Doudou euh, wax ci wax ci euh, quelques de ses sounds donc parce que Petit Doudou dafa force non mais boy, bi dafa ak ñu benn sound un intitulé Dommage sound boobu di domage nag tey ci la ñuy wax expliquer et détailler joxe ci suñuy réaction après bàyyi leen yéen tamit bu ngeen seetaanee vidéo bi à la fin ngeen joxe seen xalaat ci commentaire yi donc let's go ñu xooli vidéo bi joxe ci suñu réaction ñëwaat léegi léegi ay Jaliforra sound tey nag boy bi li ma jaaxal mooy bi li ma jaaxal mooy xale bu ndaw la xale bu ndaw la. mais par contre booy bi façon technique d'écriture bu nekk la yor moomay jëm lu jëm métaphore punchline périphrase décrédation yooyu gars yi avant tout est-ce que bàyyi ngeen xel ci bit bi non mais bit bu nice lañ ko joobal dañ ko samplé ak sound Yandé Codou Sène et ça sonne très bien à l'oreille au fait bon man xawma ko ko bit mais vraiment liggéeyal nako lu sax donc mention spéciale au beatmaker vraiment sa job Yo di fité comme dalay jox double entendement fit comme nit ku am fit mais fit comme nit fitte motax mu accompagner ko ak parce que xam ngeen nañ ni mom djit day fité loolu ñun ñep xam nañ ko. main ba bon man Petit Doudou réellement xamul lu tax mu agressif en fait. le mot tux dafa agressif ci sound moo tax mu indi ko ne tux sa mind fis ba doo xees te boo xoolee commencement sound bi ba fii petit duudu enchaînement bu graaw la indi non mais dangay sentir énergie bu muy dégager ci kaw bit bi il est très fort sa booy. damn rappeur laa fis ngay taasumaan xóoral baat mujjee taasumaan yaa fi ëpp defet dàkk fi bàkkumaan Technique d'écriture next level. a beaucoup même prononciation à la fin mais pas la même façon de les écrire rappeur laa fis ngay souman. bon ça on mën nañ ko ne clash man qu'on ma kan lay wax mais espérons que nous nous continuer dinañ ko donc let's go putain tal bi la may fay tal sen tal bi fii nag mën nañ ni taal bi moo ko moom ñu doon laaj te mu ngi nii parce que bu nee taal bi la may fay ñun ñëpp xam nañ ko fii taal bi ak kan moo fi tudd taal bi moom nag nee na day fay taal bi fay seen taal yéen ba pare soog a tàkk donc li moom sa clair et net que ni taal bi moo ko moom. caga bi ngay ndamoo yàgg sukk di ma maccal Petit Doudou li moom gros mot la quoi Petit Doudou yow danga réew. danga réew ba dof bëgg wax ju salte non mais nañ dem rek en tout cas fu ñu jëm ak yow moom ndox amu fa continuons. bis di bëri du ma lakkal tagalaat sa jëmi naka boy dem la lakkal dogal ñetti ci dugal benn seen i tàj tàj dugal bopp roo ci làmmi du ma fay bokk comme bees dama ñëw rek bokk force bari comme bees dama ñëw rek bokk force genre dafa ñëw comme ak bees bokk par la force bo leen xolé ak bees combat bu mag la def tok ay année rabul mu ñëwaat imposer bopam Beaucoup par la force hein, imposé par la force mom nak nee comme ak def par la force donc fofu dafa big up ki nga ni di euh, ak oh enchaînement

dommage waaw rek c'est dommage dommage dommage kon bés bi mooy sa dommage man jëkkëru rapport yi tax njëkk biir sa tuunu rapport sama baaraam ci biir sa tuunu rappeur sama baaraam ci biir genre day baaraam sa rappeur et moom mooy jëkkëru rappeur yi en tout cas comme ni ma ko waxee sànq Petit Doudou fu ñu jëm ak yow ndox amu fa nañ dem rek baax na

man dama ko fan billaahi dama ko fan parce que nu muy dafa graw teg ci rew rew rew ba dof la ni ma dafa kaw su ma bigee di nga pale ci nga taxaw la lay dalé man leen bari war foofu may jaayal sa bobu du tax ba nga dab sa tan def na may bi ci bir may la sun visa comme dëmb so xolé sa yaram sun tan ci biir tek tekki jag rapport yi par force 2 minutes rapport yi bir sa boy bu du wan di posi la waa ji du bëri sa sa ci bank sa boy bi du won ndax posi la dafa def name dropping ci Samba Peuzzi en fait sa boy bi du won ndax Peuzzi la. tank tank boy be tek fi tank sino dalay sank waxal ñu may àngu flow bi dafa tàng fees ni taatu ràng fi soo def ci ndànk peese du nant ndiga weñ du bant expo du mant jàng rab na lank du ma teggi tànk damay jóob lu tàng daloo chèque bi bank may changement de flow le indi fi tegu nice ci kaw beat bi moom Petit Doudou vraiment quoi qu'on puisse dire il est il est il est très talentueux en plus amna technique enchaînement you garaaw lay def non mais en tout cas en tout cas talent ba ngi fi. Come on, c'est juste ce que je voulais vous faire la surprise de son nom. Et ce dernier, et ce dernier, cet artiste rap très talentueux, ce jeune talent. et nag gars yi len leen commencement sound bi refrain bi aussi ak ci fin bi ye man dal dama fay dégg sama voix donc Petit Doudou merci beaucoup jël nga sama voix dugal ko ci biir euh, vidéo bi may nga ma buzz en tout cas bonne continuation à toi. Petit Doudou Petit Doudou.

Comment sors-le Je suis sur Instagram sous le nom de Kenza l'officiel. Ma page Facebook, bien sûr, Kenza 221. Sur TikTok, Kenza National et sur Snapchat, Kenza Diallo. Peace and love la mi Gros bisous à vous. Restez bien connectés. À la prochaine. Et Amlen Jam. Love you all. Bye bye.